way borom kaala googee waral kaala yi ku kaala wooti na koy sant tey borom dalli karbat ya moo tax ba nuy maraaki tey ji di sant asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi tudd Serigne Mbacke Niass bokk village section Touba euh, nekk responsable fii ci Daaru Marnaan bokk ci commission accueil hébergement bi euh, Serigne Bassirou ñaan jiite sëñ Cheikh Diop ndigal topp ci ma topp ci ñu farale ma fii ci Daaru Marnaan ngir ñu amal liggéey bi nga xam ni mooy liggéeyu màggal gi comme ni ngeen ko xamee. yëf yi moom dawee loo xam ne du gan ndax fukki atak juróom lu ko nit def dana ca bu xamul lépp dana am lu mu ca xam kon ni ñu daan organiser wu rek mooy waaja ci section yi ci yu wuute mooy treize sections yi ñu am ci la ñuy waaja rek ñenn ñu ci nekk waajal seenu seenu njaboot yàpp leen xamal leen ni leen liggéeyal sëñ Tuubaa moo leen tax a jóg bu bu ñu dajee mel ni ñu bokk ndey ak bàyyi nag ñoo xam ne ñoo dëkkoon démb ak bërki démb ndax dara du wuute lépp benn lay doon. waaw sëñ Basirou Niang moo jiiti aki i hébergement euh, moo tax lépp ci ndigalam lay do lay wéy mooy digal Seex Jóob mu def mu mu woo ñu téléphone digal ñu ndigal yëpp li ci jiitu mooy. li li ñu war a def avant ñu ñëw la ñu ko tegaloon ci benn document boo xam ne wax na ni nii la ñuy liggéeyee bu ñu demee ba suñu xam-xam kale ñu woo ko mu mu mu wax ñu liy dolliku ñu tàmbaliwaat foofu rek jëm ci kanam waaye ñaari kër yi moom amul différence li xew ci bee moo xew ci bii mooy dalal gani sëñ Tuubaa yi berndeel leen comme ni ñu ko xamee rek. Ah, dañu am ay waañ yu wuute. te man li ñuy def lool ñoom ñoo koy defar ba mel ni mu war a mel ñu indil ñu ko ci ay façon yu wuute parce que amul rek benn quantité ndax kenn ku ne xam na ni mën nga am fukki gan indi leen te du ñu bokk lu ñu bëgg. mais danañ góorgóorlu suñ kem kàttan ba indi ay qualité plat yu wuute yu bëri yoo xam ne benn bu ci nekk danañ danañ ko teg gan gi nag bu waaxoo ba ñëw ci euh, répertoire bi moom mooy tànnal boppam li mu bëgg xewloo mu xewlu ci fii de wilaya ñoo fi togg mooy ñu ñu tàggat nag waaye yàlla dogal nag ñu jaayante ak sëriñ bi fas yéene liggéeyal sëriñ bi moo tax yooyu yëpp fayuwuñ ci moom dañ koy def ngir sëriñ bi rek waaye nit ñu koy defee daal danañu dressé lal lal yu doy waar yoo xam ni mu war a mel lay mel xéwal yëpp façon xéwal yëpp la ñuy defar moo tax gan yi sax xëy na loolu ci ñoom lay laaj bi di dellu waaye xam nañ ni wax dëgg lii ñu leen di defal euh, doy na kawe na njortu lool waaw mu xaadimatul xidma nag ñoom bi liggéey bi ba léegi ñoo ànd ba léegi minante nañ minante goo xam ni dañu mel ne ay doomu ndey wala nit ñu bokk lenn lu ñu lu ñu yor sax noonu la ñuy liggéey coow du am wax dëgg yàlla ndax it kilifa yi ñu bàyyi ni ñu leen jàppee moom lañ jàppee ñoom ñi ñu àndal fii mel ne sëñ Abdoulahat Boussa Moutalib dafa bokk ci comité bi nga xam ne xëy na mooy doxal yëf yi kon lépp lu ñu doon jógee fii di ko laaji Basiru ñaan mbaa Ahmadou Ndiaye Nguerane dañuy dem ci moom waxtaan ceeg moom mu ñu teg ñu ci aw yoon ñu jëfandikoo ba léegi rek bi añ bi ñëwee ñoo xaw a am tuuti jafe ci saal yi moom moo ñëw réglé ko ci ci lu gaaw a gaaw a gaaw ñoom ñoo yor daal yi ku ñëw ñu ubbil la néeg ubbi la kanam yi dalal la euh, ci néeg yi ñu fekk la fa ak ay xewal jox la ay xéewal amuñu benn jafe-jafe wax dëgg yàlla liggéey bi lépp a ngi dox. santaat yàlla bu baax ndax bu ci yàlla boolee daaw ren mu boole la ci du sa kartan du sa man-man coobare sunu boroom la. muy liggéeyal sëñ Tuubaa kon ñi ngi sant di soññ nag suñ mbokk yi nga xam ni ñoo leen féeteeg mag tuuti wala ñu ñuy tuddee jëwriñ ci seen i kanam ñu gën a góorgóor te gën a fonk lu ñu war xam ne liggéeyal sëñ Tuubaa la murit yëpp ci am wàllit kenn ku ne sañ naa xool bu ci gisee lu ko neexutit sañ na koo wax di sant bu baax euh, équipe bi nga xam ne moo yor communication bi ci liggéey bu am solo bi muy liggéey tout le temps daaw ba ren gis nañ ni bu ñu jógee ci màggal ba ba ngay dikkaat ci màggal lépp day bees ndax daf dañ koy delloo siwaat ba pare monté ko ba mu méngoo ak jamono kon ñi ngi leen di ñaanal ngeen egg ci ak kawe fu